tàccu leen ma xale yi fe ونيسرك لليسر ذكر من يأسى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى ke wa zakara sma rabbihi fasalle bal tusidunal hayatal dunya wal akhiratu khairu wa abu

Ooh. sër bi soxna Fatou ma ni soxna Fatou seen borom dër bi moo ma solal tey leer na ko donc moom xam naa maa moom Fane kon yow bete bete bàkk nga toog soxna Khoudia jàngal ñu fi suñu borom subhanahu wa taala di wax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 يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة asalaamualeykum wa rahmatullah. maa ngi tudd Muhammed Kan. sama yaay mi ngi tudd Soxna Umu. sama papa mi ngi tudd Mustapha Kan. maa ngi leen dëgg taril naba'i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 ألا وجعلنا géey sama yaay mi ngi tudd soxna nday Maada Njaay sama papa mu ngi tudd sëriñ Ibrahima maa leen di bëda taril sooratul laxle soxna Xadi nuyoo la ba pare sëñ Fallou mu dem ci ñun jàng Alxuraan karim bokk nee na wax na waa juróomu góor bu jigéen sëñ Fallou foo ngay laaj soxna diggu sëñ Fallou tabaraka rahmaan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 والسبح والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك حسب لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق بشره في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك sadaqallahul aziim waaleykum maa ngi tudd Matikan sama yaay mi ngi tudd Soxna Ngoone Juuf sama papa mi ngi tudd Seex Moodu Kan maa ngi jàngee daaray Soxna Anta Njaay Mbàkke Mbàkke maa ngi leeni bëgga taril sooratum takaasur أعوذ بالله وتولي أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكي أو يزكي تذكروا فتنفعوا ذكري أما من استغني فأنت له تصدي وما عليك ألا يهدي زكي وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وأنت عنه تلهي كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة jërëjëf soxna Anta sadaqallaahul aziim maa ngi tudd ma Asafa sama yaay mi ngi tudd soxna Nday Sugu sama papa mi ngi tudd ma Fatim maa ngi jànge daaray Soxna Anta Njaay Mbakke maa ngi leeni bëgga taril soorat Muddassir iqra min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 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal muddaththir Qum fa'anzir Wa rabbaka fakabbir وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نخر في الناقور فذلك يومئذ يوم عزيز على الكافرين خير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شعودا ومهدت له تمعيدا ثم يطمع أن أزيد كلا الله العزيز maa ngi tudd Moustapha Sarr sama papa mu ngi tudd Galas Sarr sama yaay mu ngi tudd Soxna maa ngi jànge daaray Soxna Anta Njaay Mbàkke maa ngi leeni bëgg taril sooratul qiyaama اقرأ من قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم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 لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر sadaqallahul a'uuzu billahi minas saytaanir rajiim bismillahir rahmanir rahiim wan والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تت تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا هزوما نخرة قالوا تلك إذا كرة قاشرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة صدق الله العظيم warahmatullah waaleykum salaam maa ngi Daba Baabu sama yaay mi ngi tudd May Baabu sama papa mi ngi tudd Baabu maa ngi daaray Soxna Anta Njaay maa ngi leen di bëgg a tari sooratu tuuri a'uudu bil soxna Daba iqra'i min qawli llahi ta'ala bismillahi rrahmani rrahim wat-tuuri wa kitaabin maskuur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 في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في غول يلعبون يوم يدعون إلى jërëjëf. Ah. maa ngi tudd Soxna Marem Seck sama yaay moo ngi tudd Soxna Kumba Faal sama papa mi ngi tudd Sëriñ Mbay Seck maa ngi jàngee daaray Soxna Anta Njaay Mbàkke maa ngi leen ni bëgg a taril sooratul Israa بسم الله الرحمن الرحيم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 بعبده ليلا بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innahu huwa samiul basir wa atayna musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani israil li bani israil alla tattaxizu min duni wakila ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا وقضينا الله تعالى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وأن sadaqallaahul aziim matullah maa ngi tudd Soxna Waalo Mbakke sama yaay mi ngi tudd Soxna Nday Anta sama papa mi ngi tudd Sëriñ Masamba Mbakke

إذا زلزلت الأرض زلزالها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahirrahman yaay moo ngi tuddu Soxna Faatu Fay sama papa ngi tuddu Sëriñ Saaliw Fay maa daaray Soxna Anta Mbakke maa ngi leen di bëgga taril sooratu najmi soxna Ngoone ndeysaan yow de bete bete fayeen nga sa lépp fay la tabaraka rahman waaye nag yéen fayeen yéen am solo ku ko weddi nga dem soxna Ana Fay ca Dakar soxna Ana Fay sëñ bi gërëm na ko kay kon suñu fàll foo koy laaj Ngoné bismillahi rahmani rahim wan najmi ida hawa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bis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 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى استوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى laa buddi ma awxee ma kazabal fuaadu ma roye ولقد bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu fas yéene tàmbali sunu kàddu ci sant yàlla bu baax julli ci yontu yàlla muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sant sunu bunt ci lislaam di xaadima rasul Cheikh Ahmad Bamba sant boroom dëkk bi borom pénc mi borom njariñ lu bari lii ca dara luy lore àndu ci di sunu maam Cheikh Anta Mbàkke borom daaru salaam ak gaawaan

ñu gis xale yi tari bii nga xam ne bi ñu fi ñëwee ci suba ba tey ñu ngi ci waaye bi ñu ñëwee ñu dégg ñu tari alxuraan ji nga xam ne borom penc mii yaakaari tayam ak ëllëgam li muy waajati di ko wàllee mooy alxuraan alkarim soxna su baax si nag jël cër bu rëy bii di bisub alxuraan delloo ko sunu sang bu tedd bii di sëriñ làmp mbàkke mu sëriñ muudu roqaya mu sëriñ muudu maamun mu maam cheikh anta mbàkke boroom daaru salaam ak gaawaan ca wax naa ba tàyyi giléem duru sa dellu gànnaar bis bi soxna si jël jagleel ko sëriñ làmp mi jox na ko lu mu bëgg jox na ko lu maamam yi bëgg joxal ma la ko lu waajuram wa bëgg ba daaw gën naa feeñal ak bëggam moom sëriñ làmp mbàkke def loo xamee ci alxuraan jël complexe bu mag ca njaareem ca buntu këram di ñeenti téeméeri millions yu tegal mu jël projet boobu tabax ko muy kërug alxuraan di ci jàngal alxuraan ca bari bariwaana ñi mel ni man day suñu yoree ñeenti téeméeri million yu tegal balay daray xew dañuy dem wutali ko kër walla ñu defi ko leneen waaye moom mu dem wutal ko kër alxuraan di complexe tuddi ko sëriñ Muudu Roqaya woo njabootu sëriñ Muudu Roqaya woo njabootu maam Cheikh Anta woo njabootu sëriñ tuubaak ak maam Cheikh Rafal yépp ca njaareem ñu ubbi ko mu jël ndaw ji leen jàngal soxna su baax sii nag su jëlee bis bii ne ko bis bii kat dama romb ñépp ndax yow yaay ñépp ci yàgg naa di wax ne baatum ñépp dañ koy war di toj dafa aman sang bu baax ca làmbaay soxnaam am gan imaam ba teew sëriñam teew ay bokkam teew ki war a tudd bi waxtu wi jotee gan gi génn ñu waajal ko ba mu jekk dikk ne ko rukk ndey ne ko gan gi day jekk na nu ñu koy tudde mu dey ki koy tudd ne ko tudde ko ñépp mu ne ko ah dafa mel ni déggoo li ma wax de gan gi laa ne jekk na ku nu koy tudde mu ne ko tudde ko ñépp mu jaaxle lool dem ci xaritam ne ko ah damay bëgg jaaxle ñaari yoon laa ko wax ne ku ñu koy tudde mu ne ko tudde ko ñépp mu ne ko tudde ko sëñ Modou Moustapha Mbacké kooku mooy ñëpp waaye soxna si bi mu rombee ñëpp jëm ci ñëpp di sëñ làmp Mbacké jagleel ko bis bi soxna si ñu ngi lay nuyu sëñ làmp Mbacké am ci mbégte lool am ci ñaan lool moo tax ba mu jógee tey jii koo fi gisul jëmmam xelam a ngi fi ak xolam njabootu maam yee li manel faal sëriñ fàllu faala nga ne bu teewee njabootu maam yéeli manel yépp teew nañu bàyyi fàllu ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di doom ci maam yéeli manel kon su teewee njabootu maam yéeli lépp teew nañu Sidi Fall doomam ju baax jee di doomi Baye Omar Bayo Fall bu teewee njabootu baay Omar yépp teew nañu di njaay siñ làmp mi toog Cheikh Gallo Fall mu baax mii nga xam ne sëñ làmp lay waaje sëñ làmp lay wàllee teew na ak docteur Diop docteur bi nga xam ne du dolli toor ma nga nele teew na ak kan njabootu sëriñ Ibrahima Fall mu maam Moodu Fall njànd sëñ Saaliw Fall nga nee teew na ñu ngi koy nuyu ak njabootu maam Laay Gay sëriñ Cheikh Gay imaam ma nga nele yore daaray alxuraan teew na su teewee kër maam lay Gay yépp teew nañu Omar Fall nijaay sëriñ Lamp Mbàkke ma nga nele teew na Farba Jéey mu baax mi nga xam ne nijaay yi sëñ làmp la moom it teew na ñu ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax dañuy wax Ahmed Diop mi nga xam ne magi sëriñ làmp la waaye dafa jaay maggeel gi jaay lépp doonub taalibeem sëñ Ahmed Diop teew na ànd ak Jibi Diop rakkam Jibi Diop mu gën teew na soxna yi sëriñ làmp Mbàkke it dañoo ne bis bii duñu bàyyi sëriñ làmp rek mu ñëw dañuy njóg ñoom ñëpp waaj xam ne bis bi bisub sëñ làmp bii bisub njaareem la bisub lislaam la ca soxna si def nga loo xam ne te ni bi njaareem gépp nga ko defal lislaam gépp nga ko defal waaye njabootu maam Cheikh Anta Mbacke yëpp nga ko defal waaye sëriñ làmp Mbacke bi muy ñëw sama mag Yuusufa Ngom mi ngi nii teew sëriñ làmp Mbacke bi muy ñëw Moor Mbaw di taalu bi kii sëriñ bi teew na moom it mu nga nele bokk na ci délégation bi sëriñ làmp Mbacke bi muy ñëw Cheikh Fall bu bàyyi naar Fall mu baax ma ñëw na ma nga nele bokk na ci délégation bi ànd ak ay jigéenam yépp ñëw bokk ci délégation bi seex yi aju ci kër sëñ làmp yépp nga xam ne di seexi yi sëriñ làmp mbakke lañu ñoom ñaari kaar lañu def ne sëriñ làmp bis bi dañu ko yëg bisub alxuraan la bisub njaareem la ci sëñ làmp nag yaay njaareem sëñ làmp fee kër maam yéeli manel maam yéeli manel la fa newoon yéeli maneel yéeli maneel koddu ngoy muy chef de canton muy barab boo xëy pays la woon waaye sëñ làmp ba nga feeñee ci barab boobee déggee sufatu lurut baatub laa ilaha laa sayyidina muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kër maam yéeli maneel boo demee jumaa jaa nga fa yaa koy jiite yaay imam ba kër maam yéeli maneel soo demee daaray alxuraan jaa nga fa yaa ko fa samp kër maam yéeli manel daaray alxuraan yaa nga fa daaray xasida yaa nga fa sëñ làmp yow ba nga ñëwagut amagut nga ñëw nag wétali sa maam ju baax ja di maam lay gay maam lay gay boroom juróomi ngërëm yi wax naa ko ba tàyyi ci RTS nee naa leen maam lay gay boroom juróomi ngërëm yi bankal sa baaraam maam lay gay yàlla da koo gërëm maam lay gay yonent bi da koo gërëm maam lay gay sëriñ Touba da koo gërëm maam lay gay maam xaadim rasul da koo gërëm maam lay gay maam Cheikh Anta da koo gërëm mu sax foofee nag fa njaareem di fa daan dooleem lu mu yor jox maam Cheikh Anta borom daaru salaam ak gaawam soxna si sëñ làmp bég na sëñ làmp su bégee njaareem bég na su bégee lislaam bég na bu bégee ay bokkam bég na moo tax délégation bi ñu duggee am na ñooñ mënuñoo agsi ñu nga ca biti loolu nag bisub alxuraan bi nga romb ñépp jëm ci ñépp fonk ko lool di sëriñ làmp Mbacke jox ko bis bi yëg na ko ay bokkam yëg nañ ko sëñ làmp fu mu la tegan da koo yokk mu fekk fi nag njaboot sëñ Muudu Roqe sëñ Basiru Mbacke ngi nii toog Cheikh Bas ñu ngi lay siyaara Cheikh Bas jëf Mbacke ak mbooleem sunu kilifa yi nga xam ne dañu leen fee fekk sëñ làmp dina ci ñëw waaye daal loolu ubbil leen luñ doon ubbil sëñ làmp di la wax ne daal bis bii sëñ làmp Mbacke bég na ci bég na ci mbégte loo xam ne ndax danga romb buntu kër yu bari waaye buntu kër yi li ñuy bari bari fa nga jëm benn buntu kër rek la loolu yëg la yëg nag maam Cheikh Rahima Fall ba mu waxee am taalibeem bu ñëw ne ko man de Fall dama mbokk moom day xarit di dëkkandoo ca yëg ca bëgg ma ma jaaxle lool ci bëgg gi ma bëgg ci xawma lu ma koy fayee mu ne ko bëgg goo gis yëg rek moo koy fay yëg ko rek sëñ làmp nag soxna si yëg na la bëgg na la lii mu def ñun ñëpp la ko defal soxna jabara soxna jabaara Mbàkke jërëjëf yàlla yàlla fay la lii de njaareem bég na ci lislaam bég na ci sëñ làmp bég na ci kon ñu jox kàddu yi sëñ làmp Mbàkke sëriñ bi bismillah lillahi xakama bilfanaai ala hadihi daar wa axbara an al axirata hiya daaru lqaraar wa haddama bilmawti mushayida al amaar ahmaduhu ala niamihi algazar wasalaatu wasalaamu ala man xaddara min arukuni ila hatihi daar wa amara bil isticdaad li daari lqaraar wa ala alihi wa saxbihi albararati l athaar maa taaqaba alleylu wannahaar ibadallah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di jiital ci kàddu yi ñaanal sëriñ muntaxal bachir sunu borom yàggal ko fi tamay ko wér ak mbooleem njabootug sëriñ Touba gi ak ñun taalibe yépp ak mbooleem julit di ñaanal sëriñ Abo Mbacke ibnu Cheikh Mahamadul Mamoun sunu boroom yàggal ko fi te may ko wér di ñaanal sunu kilifa gii fi nekk di sëriñ Cheikh Anta Mbacke sunu boroom yàggal ko fi te may ko wér ak mbooleem njabootug Cheikh Modou Rokhaya gépp di jottali ko kàddu yoo xam ne day ndigal ci ñun waaye bu doon ak mag rekk duñ ko wax bu doon xam-xamit duñu ko wax waaye sëriñ Cheikh Anta moo jox ndigal sëriñ Basiiru boole ko ak rakkam ñu ñëw teewal ko fi teewal fi mbooleel njabootu Cheikh Mouhamadou yi gépp li nga wax sëñ Baara ne ñépp dafay dëgg bis bi soxna jabaara ñépp la ko tudde ndax euh, làmp moom luy symboliser yoonu murit la rek te mooy baabul muridiin kon bu fekkee ne soxna jabaara day xàll yoon njëkk a jël ab xew-xewam tudde ko baabul muridina mooy taalibeb kër gi kon wane na ne ñëpp la ko tuddi te ab làmp ca kanam lay nekk kon soxna jabaara ca kanam rek nga la jëm yëf yi ñëpp la ko tudde kon ci turu njabootu Cheikh Mouhamadou Rokhaya gépp euh, ci ndigalal sëriñ Cheikh ci turu sëriñ Basiiru Mbàkke mii jiite yoon wi moom itam mu jot ndigal ci magam ju baax jii di soxna Ami Mbàkke ak ay rakkam ñoom soxna maam awa euh, ñoom ñëpp euh, ci seen ndigal ñu la ñuy yëkkatee kàddu yi ak seeni rak ak njabootu sëñ Modou yi gépp di wax ne soxna jabaara sëñ Cheikh Anta mi ngi sant yàlla ci yow mi ak moom ak rakkam ñu ngi sant yàlla ci yow ndax dañoo wax ne xayrukum man taala umruhu wa xasuna amaluhu ki gën ci yéen mooy ku gudd fan te ay jëfam rafet te fan wu gudd nag mooy jëflante bu rafet ak jikko ju rafet ak ragal yàlla te soxna jabara diggante bi mu feeñ lu mu woote woon lu dul lii lay bett ñépp waaye bu wootee lii nag waa kër sëñ Modou Rokhaya ñu ngi sant yàlla ci moom ci taxawaay bu rafet bii waaye loolu bala ma ci ñëw sëñ bas dafa wax ne nañu sant mbooleem ci ci turu sëñ Bass mu jële ko ci sëñ Cheikh mu wax ne ñu ngi sant mbooleem ku fi teew te soxna jabaara Mbàkke indi la fi na nga jàpp ne teewaloo soxna jabaara waaye njabootu sëñ Modou Rokhaya nga teewal ko teewal sëñ Modou njabootoog sëñ Modou Mamoun nga teewal ak njabootoog maam Cheikh Anta gaawan waaye kon sëñ Bas bi ñuy ñëw euh, dañoo ànd ak sëriñ mbooleem njabootoog maam Yelli Manel Fall gépp ci njiital doomi maam Yelli ja ja nekk ca pénc ma di fa suñu kilifa di sama nijaay Fallou ak sama nijaay Omar ak sama nijaay Farba nga xam ne ñoom ñoo fay suñuy kilifa ñoom ñëpp kenn manqué wu ci ak seeni doom ak seeni sët ak seeni jarbaat ak seeni goro kenn manqué wut sëñ Basit wax ne nañ ko santal ñi ñi jóge njaareem ñëpp te buñ koy sant nañ ko sant ñëpp ci turu sëñ Cheikh Anta mi nga xam ne lu waay jëfal sëñ Modou Rokhaya moom nga ko jëfal ñu sant mbooleem seex yi aju ci kër gi sëriñ Cheikh Anta Thiam ak kook njabootam sëriñ Cheikh Jaañ Gay ak kook njabootam sëriñ Seexuna Ñaŋ ak kook njabootam sëriñ Ibrahima Ba ak kook njabootam ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant ndax li sëñ Baara wax dëgg la ñoom ñëpp danoo mànkoo bokk yi ne kenn du fa des ba bi ñuy ñëw am na ñoo xam ne bàyyi nañ leen fa ndax oto yin jëloon yëpp dafa mujj fees ba amatuñu fu ñu leen def loolu bokkoon na ci li ñu fa gën a yàggal ku nekk naan fu may dugg ndax bis bi ñor gu mu la ñor bi nu ñëwee it sëñ Bas nu fekk fi sunuy wóllëre yu nu bokkal sëriñ Touba ñoo xam ne sunuy xarit lañu euh, mu nekk ca bopp ba sëriñ Mourtada nga xam ne àdduna bépp xam nañ sama diggante ak moom mu ànd ak sëriñ Mam Mor Ndokk ak seenub taalibe sëriñ Jiili Buso. mbaa nekkul sëñ Mamor Mbacke ak sëñ Mourtala yu ñuy ñëw ànd ak seenub taalibe sëriñ Jiiri Bousso euh, soxna Jabaara sama xarit yooyu itam ñu ngi lay ziyaare ci bis bi bu baax te di la ci jaajëfal ma ñëw yëgal ko sama xarit bu baax bii di sama doomi ndey di sëriñ Baye Cheikh Mbacke di doomi sëriñ Modou Mahfous mu soxna May mu sëñ Touba moom itam jóge ba tuuba dikkal ma ci bis bi. moom it yàlla nañu ko yàlla fayal ak kóllëre ak ak bokk euh, di sant waa kër maam Seera yi fi ñëwoon ci suba ndax jàppoon ne conférence bi nja njaareem lañ koy defee di sant sama bàyyi sëriñ Fallou mu sëñ Basiru ndax moom it ak njabootam yebal na leen fa ci suba jàppoon ne conférence bi njaareem lañu koy defee maa leen jéggal ne kon damaa waroon a ànd ak ñoom indi leen fii ba ñu xam ne ndax loolu la leen seen bàyyi waxoon waaye ma ne leen teggal naa leen ko. sëriñ Mamoun mu mu mu mu mu sëñ Alaaji Mbàkke ba bàyyi seexu donte Daaru Salaam la bokkit waaye ci sama délégation la bokk mook sëriñ ba Basiiru Saaxo e, ñoom itam yëgal nañ leen ko ñu ànd ak ñun ci sama délégation e, bi ñuy ñëw itam sëriñ Saaliw Fall moom sama nijaay sëñ Ibra moom itam bu mu limee sëñ Fàllu ma nga ca délégation ba ca la bokk waaye soxna Jabaara suñuy mbokki bopp mën ak yow di sëriñ Abdoulahat Mbacke mu sëñ As Faale mii ak Alaaji sëriñ Dàkkoom sëñ As ak sëriñ Mamor Mbackeem sëriñ Seex Mbacke di sëtu Mamor Jaara di sama rakk di sama xarit ànd ak xaritu benn bakkanam di sëriñ Mamor Mbacke mu sëñ As Faale ñoom ñëpp itam ci sama délégation lañu bokk donte suñuy mbokk lañ mën ak yow. Euh, Adja Aram Fay bokk ak sama xarit. sama seex di colonel Ousmane Faye bu port nga xam ne moo waroon a ñëw waaye mu yebal rakkam ji mbokkal ndey ak baay di ajaa Aram boole kook ay xaritam sunuy xarit def délégation ànd ak man ñëw maa ngi leen di sant bu baax di leen ci gërëm waaye sëñ ba Basiiru sëñ Modou Fall mii toog di sama doomi nijaay ànd ak ay magam ak rakkam ci bëccëg la fi ñëwoon dëkk Touba gii yor firigo di defar di yëngu ci wàllu firigo te nekkal ma Touba représenté fi mbooleem njaboot goo xam ne ci man la bokk mi ngi nii toog moom yàgg na fi lool sëriñ Assane Diouf mii ak sëñ Assane Seck ànd ak Cheikh Mouhamadul Mamoun mii bokk ci kër gi ñoom it di jàngkati xasida gis nañ li ñu fi def sunu njaboot lañu ñoom it fii lañ nekk ñoo ñu fi jiitu di sant mbooleem mbokk yi ak daayira yi nga xam ne ñëw nañ damay bañ a lim yi waaye ku ci nekk yaa def sa moyen bopp góor góorgóorlu jàpp ci biis bi ba ñëw ànd ak ñun sama doomi nijaay Serigne Cheikh Fall cité ouvrière di doomu Baye Naar Fall di sama xarit di sama di sama sang di sama doom nijaay ñëw na ànd ak ay rakkam ak soxnaam ak i njabootam moom it noo ngi koy sant bu baax di ko gërëm mënuñoo lim ñëpp waaye soxna jabaara nga xam ne suñuy soxna itam ñoom ñëpp ñoom ñëpp a ñëw waaw ñett rekk laa am dese naa benn kon na na nga jàpp ne benn bi moom tëjuguma ko maa ngi toog di di xaaraat ndax bu ëllëgee ba ñuy ñëwaat fii ma mën a ànd ak ñeenteel bi moom itam mu mu mu teewe ah sëñ Bas <laughs> bu ko defee nag lii soxna jabaara may sant sëñ Mame Balla mais ak ñi bokkal plateau bi ndax nit boo koy defaral nit boo koy defaral ay ganam da leen di yaatal te yaatal bi ci gën mooy dalal gu rafet te sëñ Mame la ni mu dalale gan ñi buñ jëlutoon kàddu sax sunu xol sedd na bu ñu jëlutoon kaka kàddu it sëñ Mame Balla ràññee gi mu ràññee dooyoon na sëkk léeg-léeg nga dem ci conférence dégg mu naan cinq minutes lañ la may wala dix minutes lañ la may kooku day yàqal borom xew wa waaye defarulu ko nit ñi kenn amul jot waaye nag ñàkk xam nu ñuy def nit ki moo tax ku nekk dagg sa a ñëw waaye yow ku ràññee nga moo gën yow moom war nga lu ñuy organiser ti ci conférence yi ñu jox la ko nga di ci kii ndax nit da ngay joxe cër nit dafa mat fonk walla xadd karam naa bànnee aadama ndegam suñ borom moo fonk doomu aadama ba ne lépp lu ma bind moo ma ci gënal doomu aadama des koy fonk kon te ku la gën a fonk nit mu moo la gën ndax nit du joxe lu mu amut du joxe lu mu amut dangay fexe fexee xeex ak sa bopp nag ba doo am lu bon waaye yow fii ñu la fekk sedd na sunu xol lool yàlla na la yàlla doole jàppale njabootu sëñ Modou Rokhaya gi sëñ Bas mi ngi sant ñëpp ci seen taxawaay bu rafet ak ni ñu taxawoo bis bi góor ak jigéen jigéen ñi nag ñoom seen pastéef moom kenn mënu koo natt fu mu toll waaye yàlla na leen yàlla doolee jàppale dëgëral leen dooleel leen ci barkeeb Cheikh Mouhamadou Roqee sëñ Modou Roqee amuñu kudul moom te amuñu ludul moom te gëmuñu kudul moom te yaakaaru kudul moom nu ñu mel ak lu ñu am jëmm ma tax waaye gis nan ni mu ni ko ak ni ak njabootam bennoo te loolu mooy mbégteem sëriñ Cheikh Anta moom mooy mbégteem sëriñ Modou Rokhaya Mbacké kon yal na leen fi yàlla yàggal te may leen wér te tàpp seeni xol te boole ko mu gën a nekk benn ndax mbooloo mooy doole waaye nag soxna jabaara góor baax na jigéen baax na ndax aaya bii di wal asri inna al insana la fi xus ila alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilxaq wa tawasaw bi sab fa hadihi sura al azima misanun lil amal la lil ashxaas min xaytu zakar wal untha nit du mooy ki am solo mais taxawaayam ak jëfam mooy li am solo kon taxawaay yi ak jëf yi moo mën a xayma ak jox valeur nit ki moom mooy kan laxad jaa al islaam wal maratu ala ala hada wata as sayyi ku ne xam na ne laata lislaam di ñëw wala bi muy ñëw dafay fekk waton sayyi ñu doyadal jigéen euh, néewal ko doole xeeb ko waaye nag lislaam dafa ñëw fa anqadaha minhu wa karramaha wa damina laha xuquqaha wa jaalaha musaawiyatan li rajul fi kathirin min alwajibati diiniya wa tarkil muharramat wa fi sawaabi wal iqaab ala dalika qaala allahu tabaraka wa taala man amila salihan min dakarin wa untha wa huwa mumin fala nuxyiyannahu xayaatan tayiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu yamaluun nga xam ne kon soxna jabaara jigéen la waaye day jigéen ju man góor day jigéen joo xam ne yaakaaru ku ko may mu gëm ne yàlla mi kiy joxe kenn la te mooy mawlaana tabaraka wa taala te kum mën a doon boo ko laajee juróom-ñaari ajjuma yu tegaloo bu la ko waxee ak bu la ko waxut jéppina la nga jóg dëgmal yàlla sa boroom di ñaq di liggéeyal yàlla ci alxuraanul karim gëm ne yàlla fu mu tagge góor tagge na fa jigéen lu fu mu digale góor digale na fa jigéen fu mu teree góor teree na fa jigéen innal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا وذاكرات gëm-gëm boobu nag dina la yóbbu boo ko booleeg sa jomi baay ak sa ngoro baay ak sa bëgg lu baaxam ak shujaa ak iqdaam gi nga donne ci sa baay boo ko booleeg sa pas-pas da àgg fa nga jëm kon nag lii nga sos tudd ko soxna Anta Njaay Mbàkke te soxna Xanta day mooy way soxna xant mii day mooy way juru maam Mariama bi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa di jundi naan fuzti bi zarfil xasanaat sayidatan li muxsinaat maryam fuqtil muuqinaat koo kii day way juram wa ko jur soxna anta lañ wax ne noonu lu muy soxna anta bintu faaquuda ibnu xatil kooki day laxad waradat qissatuha fi mawdicin waxid min kitaabillahi alaziz id qaalat imraatu imran rab inni nadartu laka ma fi batni muharrara fa taqabal minni kooku jomam ak ngoram moom yaayi sayyidatuna Mariama moomu di soxna Anta moomu njàmbaaram mooy jigéen ji njëkk a tudd doomam doomam nekk ci biir mu ëmb ko ne ko wa inni sammaytuha Mariama tudde naa la Mariama yàlla wéyal tur ba mu juddoo am doom ju tudd Mariama suñu borom wéyal tur muy sayyidatuna Mariama te sayyidatuna Mariama moomu giir gi mu bokk giir gu suñu borom subhanahu wa taala fonk la woon tànn ko itam te yàlla mooy sàkk di tànn wa ko yaxluqu maa yashaa wa min awlaaika al mustafin imraatu imran nga xam ne turam mooy anta bintu faaquut nga xam ne waxat kaana ahlu hadha al bayt min xiirati nnaas ci tànnee fi nit ñi la bokkoon id kaanu mi man istafaahum allahu taala ala kama axbarana alquranu alkarim bi qawlihi subhanahu wa taala inna allaha astafa aadama wa nuuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alalamin durriyatan baaduha min baad wallahu samiun alim kon soxna jabaar mii wooti lii itam tuddee ko soxna anta moomee suñu ci ay tànneef la bokk ndax baayamay nijaayam nijaayamay bàjjanam kon yow fa nga bokk suñu boroom tànne la fa nga war a nekk tànneef ndax euh, lu baax mar boo boolee ñaar ñu baax lu baax rekk a cay soqi ko marajal bahrayni yaltaqiyaani ñaari géej yu jaxasoo na baynahuma barzaxun la yuqiyaani ana lu muy jur ñaari leer yooyu yaxruju minhuma lu lu wal marjaan loolu rek moo ca mën a ba ba bàyyi ko kon ku am aslu bu baax wax dëgg yàlla danañ séentu ci yow ak mbaax kon nu ngi sant yàlla ci yow ba nga ñu wooyee ci ak baax nga gëm ne it jigéen mës des gannaaw ndax lislaam desalu ko gannaaw ndax wa hunaaka ba'du ma tatamayizu bihi almar'a an rajul wal athar alfitriya wal amaliya lidalika ra'ayna anna al islam axasa bi yaddi al insan ila ma taqtadihi alfitra wa yaqtadihi al aqlu almujarrad an ilhawa wala shakka anna nidama taalim alayhi an yuraaci hada alwat wa takuna muraacatu dalik bi ijaadi manahiji xaasa li dirasati almara wa thaniyan bi nawciyati tahil alladi tuahilu lahu almara wa thalithan bi taxassusiha fi baadi aljawanib almunasiba laha kon jigéen dafa yàgg am taxawaay bu rafet ci lislaam ñu moo tax lislaam jagleel ko ay njàngale yoo xam ne moom daf ci wéet nga xam ne moo ko rawe góor ndax moom dafa bëri lu koy xaar min xaysul qiraa den ko jàngal am njàng ak mbind wa kullu ma lahu alaqa bi sha'niha lu mel ni ka takaalif mukallafa biha shu'unul bayt wa shu'unu tifl wa shu'uni zawjiya yooyu yëpp da cee wéet kama qaala subhanahu wa taala wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal xikma nga xam ne wa hunaaka aydan qadaaya min altaqassus taliqu biha am na yeneen spécialité yoo xam ne jigéen dafa war a xar tànku tubéyam ca loola ndax wàllam la lu mel ni ka tatbibu nisa wa na consulter sa moroomu jigéen ak visiter ko seet ko ak faj ko loolu jigéen war naa xar tànku tubéyam ba am ci ay spécialité ba lu ci askan wi soxla bu ci jigéen lay jubali mu mën koo futti waaye li gën a ñaaw jigéen sàggan ba moom ci boppam buy dem ci ab docteur góor a koy futti loolu càgganteeg jigéen la bu ñëpp meloon ni soxna jabaara mi problème boobu du posé ci àdduna kon niki noonu wal xiyaata an nasawiya an nisawiya ñaw ñaw jigéen góor gune ne lëng taxaw di natt jigéen di jël ab nattu di teg ci ay yëfam ak ci dënnam ak di yooyu rafetul ci lislaam bu fekkoon ne jigéen ñi xar nañ seen tànku tubéy ci xeex mën a ñaw ñawu jigéen góor ñi dañuy ñawal góor ñi jigéen ñi di ñawal jigéen ñi te loolu mooy al lijtihaad loolu mooy dëgg-dëgg effort kon bu jigéen ñëpp meloon na yow ci secteur bii nga nekk ñu nekk ko ci yeneeni secteur kon lislaam dana gën a mën a taxaw ci Sénégal te danañ ci gën a mën a am yaakaar niki noonu itam wa taxlimul banaat gone yu jigéen ñi ka ca gën mooy jigéen jàngal leen yar leen niki noonu wa rabbatul bayt ya kër gi loolu lépp dañ cee war a préparer jigéen li tusbihal mar'atu zawjatan saaliha wa umman saaliha wa murabbiyatan saaliha wa rabbata baytin saaliha hada huwa shay'ul asasi fi taalimil mar'ati loolu mooy base fondamentale bi nga xam ne ci lañ war a tàggat jigéen mu xar ci tànk tubéyam ba man ko war a nekk al école boo xam ne école bu ngeen demee Fatimatu bintu Zahra boo xoolee njabootu Serigne Touba jigéen ñi ñëpp mokkal alquranul karim boo xoolee nit ñu baax ñi Aïchatu kooku nekk woon na ab delluwaay référence ci l'islam ak ci sunna ak ci alxuraan kon soxna jabaara royuwaay nga wu baax ku baax jur ñu baax la seq ngay nekk royuwaay kon lillaahi wa rasuul sëriñ bas nee na ci kàddu sëriñ Cheikh Anta ñu ngi lay ñaanal suñu borom yokku la yëkkati la dooleel la kàttanal la ba daara ji nga taxawal dem ba nekk école excellence waaye du ci yem waaye yaa ak sox suñu jarbaat soxna moomi Silla di sëtub sëñ Modou Rokhaya di jàmbaar ci kër sëñ Modou Rokhaya man naw gu ma nawoon jikkoom moo tax ma jël samay doom dénku ko ko muy ñu di ay sangam waaye ma ne leen nañu mel ni yow mii di sama jarbaat yow Momy la ndax Momy la dama koo naw te yàlla dafa ma nattoo ma bëgg ko ndax dama bëgg alxuraan ba bëgg ko bëggaale alxuraan kon nag soxna jabaara yàlla na la suñu borom doolee jàppale yaag sa doom jooju di soxna Momy njabootu sëñ Modou gépp ñu ngi leen di déglu di leen xaar lu ngeen song danañ ko ànd ak yéen kon bokk yi ñu ngi gërëm képp ku fi teew ci turu Serigne Cheikh Anta di leen ñaanal tawféex yu laazimu taysir bi barakati cheikhina wa wasilatana ahmad ibnu mohamad ibnu xaadimu eh, cheikh ahmed ibnu mohamad ibnu habiballah cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ixsanin ila yawmi ddin mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi nuyu ñëpp di siyaara ñëpp kàddu yi may yëkkati maa ngi koy yëkkati di ko jottalil soxna jabaara mi woote bis bi soxna si mi ngi jottali ak cantam ci yéen mbooleem ku fi teew soxna si nee na mi ngi lay sant di la gërëm waaye tam di la ñaanal suñ boroom def sa tànki dikk yi ak sa tànki dellu lépp yàlla bindale ko ci sa téere yiw mi ngi wax ne moom de lépp lu diisan ci moom ci bis bi mujj na oyof tooy ndax seenu nekk ci wetam jàppale ko seen taxawaay bu ràññeeku lool ba bis bi mel ni mel tey kon nag cant gi nga xam ne ëmbal na leen ko ci xolom amul sax baat yi mu ko mën a jottale waaye lam cay teg rek mooy ak ñaan gu muy ñaan borom bi subhanahu wa fay leen ngën ji pay sëñ làmp soxna si mi ngi lay beral sa cantu bopp mi ngi wax ne amoon na mbégte lool bi mu defee ab délégation ñëw fekk la njaarim yët si la cër bi mu la doon cër bi mu la jox waaye gën naa amati mbégte bi nga dikkee sa dikkiin wu jekk wii dikkin woo xam ne wane nga ne liñ la jox muy cër bi ñor na la lool ba tax nga am ci taxawaay bi nga ci amee cër bi nag jox na la ko ngir ñett jox na la ko ngir mbokku deret gi waaye tam jox na la ko ngir ak xaritoo gu nekk seen diggante waaye jox na la ko tam ngir li ngeen bokk muy toolu lislaam bi ndax yow tamit sa taxawaay ci alquran ràññeeku na lool ca barab bee ngeen nekk di njaareem kon nag kàddu yi nga yëkkati dugg na ko lool téye na ko lool yëg na ci kàddu yi ab soññee te incha allahu dana fas yéene wéy ci yoon wi mu nekk ba keroog suñ boroom di ci jeexal ab liggéeyam te loolu yàlla na yeex kon mi ngi lay delloo ak cant yow ak ña nga àndal te su ma tuddee sëñ Bas ci bopp bi mu yóbbaale ñëpp moom amul seen fay ndax yéen a bokk bàyyi xay na waaye tam waxtu wu nekk yéen a ngi ci wetam di ko jàppale ci ay yëngutoom kon nag yàlla mi nga xam ne moo am pay moom la leen di bàyyeel di leen ñaanal yàlla moomu fay leen bu loolu jàllee soxna si mi ngi beral ak cant ba tey waajuru dongo yi ci seen taxawaay ñoom it ci daara ji te cante gi moom waxtu wu ne mi ngi koy jëmale ci ñoom ndax da koy jar ki yëkkati doomam jox la ko ngir nga jàngal ko yaral ko ko sa jikko da koo doy moo tax mu jël doomam jëbbal la loolu ak cant war na cee jóge bu bàyyi koo ci sëriñ daara bi wala soxna daara bi jëm ci waajur kon doyloo gi mi ngi leen ciy sant bu baax a baax waaye itam mu ngi leen sant ci seen i taxawaay di fàttali it waxtu wu nekk rek ne daara ji moom alali ñëpp la kon nag nañ bokk teeku ak suñ fukki loxo kenn ku nekk rek la nga xam ne mooy warteefam ca daara ja waxtu wu nekk mu du ca góorgóorlu kemtulaay kàttanam ndax loolu mooy tax daara ji àgg fa mu jëm incha allah ndax lu ñëpp bokk moom ñëpp dañuy bokk defar rek waaye bu amee ñu seetaan rek bootul dana am lu sooxe kon ci kàddu daara ji soxna si mi ngi sant waajur yi waaye tam di sant jàngalekat yi waaye tam di sant mbooloom mboolem ñi nga xam ne Euh, jàpp nañ ci liggéey bi ba bis bi mel nii mu mel tàmbalee ko ci ñi nga xam ne ñoo yoroon wàllu programme bi wàllu organisation bi sëñ xaadim jañoom sëñ xaadim sill sëñ bàllame ne ca kaw taabal ji ak sëñ Mamour Mamour Fall ñoo waaw sax jii di Fall ñoom ñëpp ñu ngi leen di beral ak cant si sëñ Fallu Fall kon ak sëñ oustaz Assane Sourte wax dëgg yàlla ñoom ñëpp seeni taxawaay ràññeeku na lool ak mbokki soxna yi def nañ luñ mën ak luñ mënut ngir bis bi yewén kon ñoom it yàlla na yàlla fay leen ngeen ji pay comme niñ koy waxee rek nit moom bu dee mook boppam rek dana néew lool waaye su dee moo bokkam rek dana bari lool kon nag mbokk yi itam wax dëgg yàlla seen taxawaay ràññeeku na soxna si mi ngi leen di beral ak cant yéen it di leen ñaanal suñ borom subhanahu wa taala fay leen ngeen ji pay li ñuy daanee la rek nga xam ne loolu moom suñ kàddu bopp la mooy soxna jabaara ñoo ngi lay ñaanal yàlla mottali say naal waaye tam ñoo ngi lay soññ nga gën a góor góorlu bu baax a baax a baax a baax yaa ngi góorgóorlu de waaye yokkal bu baax a baax a baax a baax ndax tool bii moom day tool boo xam ne suñ boroom mooy xéewale nit rek mu nekk ci du ku ko bëgg def rek def ko xëy na waaye yàlla mooy xéewale kum soob mu nekk ci kon nag yow mi ci nekk jàpp ne la da ngay jàpp ne suñ boroom dalaa tànn ngir nga liggéeyal ko yàlla nag bu la tànnee ngir nga liggéeyal ko war ngaa doon ko am jom war ngaa doon ku sa itte kawe waaye tam war ngaa doon borom pas-pas bu sell ngir loola kat mooy méngook tànn googu ñu la tànn kon nag ñoo ngi lay soññ nga gën a góorgóorlu bu baax a baax donte yaa yoon wi waaye nag gën la fedd li sa laxasaay te xam na lii nga nekk kat mooy li waajur wi bëggoon te doon ko mébét ba ko doon tudd ci làmmiñam kon nag dañuy wax ci loolu alhamdulilah waaye itam di la ñaanal suñ borom kàttanal la dëgëral la yow ak ku mel ni yow su ma ci tuddee ku mel ni soxna moom yi mu doy misaal wax dëgg yàlla ni ko sëñ làmp waxee léegi seeni kem buñ bari woon ci tool bi léegi lu bare bare bare bare ci lu yàqu woon defaru te wax dëgg yàlla seenu ngàmbaar ak seeni effort ràññeeku na lool kon yàlla na yàlla dëgëral leen yéen ak ñu mel ni yéen képp koo xam ne tam yaa ngi ci maydaan bi muy tool bi di ci liggéey yàlla na suñ borom defal la ci ay ndam yu kawe kawe kawe kawe di daaneel suñ kàddu foofu wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh